ETDR établissement Touba Darou Rahman de entreprise bu mak bu yëngu ci walu BTP travaux de bâtiment génie civil manam lepp lu jëm ci walum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ci taxaw ba mu établissement Touba Darou Rahman su la nexé mën nañ la jox kay amé amna gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moy liko dalé ci fondation élevée tabax xuule ak raax ci second œuvre bi nak ci ngeen di électricité ak plomberie. ngeen jëf mbokk yi ah, te kontaante bu baax a baax pour ñuy suivre ci fépp fu mu mënti nekk rek ñu ngi leen nuyu leen siyaar tey na ñu ngi fi nga xam te mooy arène nationale ki ñu fi di Pape Sarr njiital Sarr production taxawal combat yi nga xamante ne bi macha allah képp ki rek yaa ngi ci gis sa bopp tey li ma taxaw ni muy grand combat bu dox ci diggante Bébé Birahim bàyyi koo écrit ma à gauche waaye kii di koo écrit Bawal féete ma à droite muy affiche bu nga xamante ne bi ñu ko bëggoon bari na waaye nag yàlla dogal ki nga xam muy ñaari xale yi xam te bi ku ci nekk si ñoom bëri nga fii ci arène nationale Belende Bébé Birahim bi mu fiy jógee digganteem ak euh, Belende la woon fii ci arène nationale waaye Kili Sall Bamba itam bi mu fiy jógee digganteem ak euh, Boy Naar Fall la bu Tëngéej Pape leen nag muy ñaari affiche ma jox la ñu nuyoo su ko defee ñëw ci waxtaan bi Zal maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maam Diarra ñu ngi lay ziar di la delloo nuyoo bi di nuyu ñi fi teew ñëpp journaliste yi di ko teg sa loxo nga nuyul ma ñëpp. Mm-hmm. waaw di nuyu suñu mbokki Bawol Bawol yëpp mm-hmm. di nuyu Pape saar bi tëgg komba bi. di ko ñaan réussir total. di ñaan di nuyu képp kuy bool boola. rawatina ñu nekk parc cinéma sama doomu ndey Ousmane Tine. xam di nuyu waa Bawol bu baax a baax waa kilomètre cinquante waa Mbul Kaayal. tund séeréer bi yëpp maa leen di siyaar. kaay ci li tuul yi bàyyiwuñu kenn. di ñaan wax nag seen doom am na bis. am ñu waajal ko bu baax defal ko ñaan. am nañu combat ñu ne Bébé Birahim. ñu ñaan suñu borom defal ñu ci ndama. Ah. borom tubaab jalaaw borom yoof maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maam Thierno maa ngi lay ziar. ginnaaw bi ma sant yàlla. di ñaanal sama papa. yàlla na ko yërëm. di ñaanal sama yaay yàlla di ñaanal ñi ñàkk papa yaay ñëpp yàlla na yàlla yërëm. di la nuyu Thier di nuyu journaliste yi di nuyu Pape waaw di ko ñaanal bés bi mu réussir parce que Pape ku baax la. Mhm. ma dama ko yàgg di ko bëgge di ñaanal sawaay quoi sama adversaire bi Zal Bambay uh-huh. di ko sant di ko gërëm parce que sama avance sama avance gars yëpp kuñ ko jox mu daw quoi uh-huh. waaye moom dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal wér gu yaram hmm. waaw ndax li ko jël waaw ndax li mu ma jël quoi dama mais est-ce que xam nga Zal Bambay non Zal Bambay xam naa ko uh-huh. xam naa ko bu baax xamul lan non Zal Bambay moom la ngay laaj est-ce que xam na ma ah man yow laaj ñëwaguma ci moom Zal Bambey moom laay laaj moom est xam na. non teel na kaay kaay kaay nii teel na kaay moo la xoolal caméra yi kaay ni moo la xam nga Zal Bambey. xam xam naa ko. xam nga ne ndaanaan la. non Bawol. waaw dañoo xam seen sarax. Hmm. waaw Ikri Yoff daa xam Bawol xam na la xam na ni Bawol moom euh, Yoff dañoo xam seen sarax. Ah, loolu avant xam nga xam nga Bébé Birahim. xam naa ko seetaan naa ko ay combat yu bëri ñun ci làmb ji uh-huh. xam naa ko bu baax. Hmm. loolu mu wax nag xalaatam la wax rek. waaw mais bu fekkee ne dañoo xam seen sarax. Hmm. sarax bi tey lay dakk. waaw la ko jëloo. bëgg a bëre wane sama bopp. Hmm. toog bi di toog diir bu yàgg bëre woo amul njariñ. Hmm. ñun suñu combat bu tegale woon weesu nañ fii bu yàgg. Uh-huh. ñun ku ñu xam-xam naa ndaanaan lan. li ma koy xamal mooy. bu bëree daanu. Eh? bu xeexee waye di. bu bëree daanu bu xeexee waye di bu xeexee maa la wax lii. est-ce xam nga ne kii ndaanaan eh, ma ngay waxal de. waaw bawal bawal avance bi yàgg nañ koo daw ñi ko daw bari na tey yow nga jël ko la moo la ko jël lu tax nga ñemee euh, bébé Birame bu jël ko. parce que mbër la dafa war a bëre. Mm. moo tax ma jël ko. Mm. dafa war a bëre. dafa war a yi nañ bàyyi mooy tonte bi. Mm. ñu nag ay bawol bawol lan. xamale wu ñuy jonj ak joor lu leer laa ay bawol bawol lan de. nee waa Yoff bawol xam nañ la. non mooy loolu. gis xalaatam la wax. mais ñam doon bëreet ak biiru benn. Uh-huh. te buñ jëflantee fii. Uh-huh. moo xam ne ñi mu doon jëflantee ak biiru benn. macha allah non ñun ragaluñu loolu. ki ñu jóge bërki démb gis nga ko Boy ma la wax non ko mu taxaw. non xoolal caméra non bàyyi ko bàyyi ko bàyyi moo la gën a ñàng yow ñàngoo. te baar bi suuflee fii nga xam ne ñàngoo. yow leer na la yow leer na la leer na yow mii su ma la jàppee ma yow du combat yow leer na la mënoo maa daan Ah. yow mii yow yaa gën a xam ne mënoo maa kon su ma la jàppee dinaa la duma naa xam la moo la jaaxal yow déglu ma fi damay xamul xamul déglu may déglu fii maa la daax a bëre déglu ma fii maa la daax a xeex boo na a xam-xam ma xam ne maa la daax a bëre yow da ngay wax lu la neex barke alxuraan maa la daax a bëre fekkee yow ku daax a bëre na ko yàlla may ndam eh? man ak yow ku dàq bëre yàlla ko suñu borom may ndam. yow man ñi ma daan daanoo leen ñi ma bëre bëre leen. yow ñan nga daan man man la sant di la jëlee sama avance ñan nga daan man ay infra rouge. waaw ah ay. dem si yàlla Moussa Balla Gaye. jëm si yàlla Moussa Balla Gaye. ah. waaw yow bu mu yow yow ñoo bëral yow ñoo bëral. moo gën a aj Kona Kona bu Lamsar. moo gën a aju Mamaya bu Tëngéej. yow da ngay ne da ngaa ne. ak Naar Fall bi nga jógee booy naar dama ko jëlale dama jëlale booy Naar Fall. yow boo tawee dinaa la duma dinaa la dama bëgg nga def sa xel ne ki ngay bëreet. li jën tiw ma la lu toll nii dama bëgg nga def ko sa xel rek. dama bëgg nga xam ne bawol bi ngay bëreet rek yi ngay def nii man yëngalu ma dawul sama yaram de. yow da boo taxawee kay am ñu ko doon wax billaay walaay du ma la reculer mais Sall mais Sall Sall Sall oui ma maître du ma doon reculer Sall Bambey ah, Sall bëgg naa xam ne maa la mën ba mën maa la mën aller retour yow la ko mën yow yow bu ñu dajoon fenn yow de ay daw. yow da ngaa may Sall Sall ma laajee Sall ma laajee Sall. bool bool xam naa da nga bool bool bool bool nga xam ne bool bool bi ngay waxaat rek. bool bool mosul ngi xam nga loolu may wax. kii Yoff bii ci bool parce que dama lay daan. mais Sall duma dama lay daan. dama lay nga def ko sa la moo tax nga ñeme bébé Birahim. waaye kii day dara. kii ñi may bëre ñoo ko dàq bëre ñoo ko ëpp doole nga ne ku dàq bëre ku dàq xeex yàlla na ko sunu borom defal ndam maak moom ku dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam loolu foo ko teg parce que man xam naa ko xam ma xam na ne maa ko dàq la moo tax mu xool mu ne la analyser yow yow yow yow yow yow yow da ngay simba rek bébé ma la moo tax mu xool ni la moom moo la dàq yow man looloo ma jaaxal ku xam bébé ku xam bébé Birahim mun a Zal Mbaye Mbaye moo ko dàq bëre moo ah. ko dàq day théâtre rek la moo tax mu ñeme la ah xalaat naa ah. man dama koy sant di ko gërëm li tax mu jël sama avance. man man di ko ñaana réussir. di sax ñaanal Pape Sarr bu baax. parce que nag grand la boo xam ne ñu dañ ko yàgg di suivre. muy défendre Pikine ñu yàgg ko di seetaan nag laa la wax. li ma lay yoo du ay deux ans trois ans quatre ans yi yàgg nañu seetaan Pape Sarr muy indi mbëri di ci wane boppam kon bu demee bay tëgg làmb donc bëgg ñëpp ñëw jàppale ko dooleel ko. tey lu ñuy xaar sa diggante ak Bébé Birame Pape Sarr bàyyi mbër yëpp ñëw taamu la taamu Bébé Birame pour tëggal leen pour affiche. Hmm. moom loolu laa bëgg. ñu xeex bëre. Uh-huh. laa bëgg ba nga ba nga xam ne combat Pape Sarr bii. waaw Pape tëgg na combat bu neex. te man gëm naa ne combat bu neex la tëgg. tey li nga sol muy TDR. waaw di di ñaanal Kandji. di ko wax mu ñëw dooleel Pape Sarr dooleel ñu. Hmm. parce que suñu mbokk Bawol Bawol la. waaw mu may ñu xaalis ñu jënd ay billets hmm. taral bis bi. duma waji dan ko. te gem na ne dañ koy duma dañ koy dan waaw. Sarane production sar mom man mom limay wax suma ko topé fii diga wax mo fi jóge parce que Pape Sarr man dama ko yaga diga ko rom bi mo ma manaka man ak combat bi mo wax sax bi mo daf ma contane quoi parce que man dama la yaaga suivre parce que da ngay bañ. man dama bëgg kuy bañ quoi. man lool voilà man loolu kessé ma ñor ci mom uh-huh. du dara parce que mom loolu rek moom du jëw nit moom lu mu la bëgg wax dala koy wax bu ngeen rayante ngeen rayante bu jeexee jeex na bu jeexee jeex na bu ngeen nekkaat si jàmm moom moom maa ngi koy bés bi mu réussir si uh-huh. waaw jeune Isibet kii Jamil Nourou la Saaren production Jamil Nourou la waaw ak Kanji gaa yëpp waaw bëgg naa ñëw jàppale Pape parce que Pikine si yëpp boppam ñoo war a génn stade bi uh-huh. billaahi Pape Sarr bu ñu ko fayee xolom stade bi kenn du fi xaj uh-huh. dañuy tëj porto yi mu dee la benn mbir combat bi ku ci ëpp mobilisation dañ lay décorer. ah kon. kon dañ may décorer. ëpp mbooloo parce que man pere naa. man Pape Sassou du ma ëpp mbooloo si stade bi. <laughs> Zal dégg nga ah, ko neexee bu ko bu ko neexee Pape Sassou bañ ko ëpp mbooloo mais maa koy ëpp mbooloo fii force. Paaku Bawol baa ngi nii. Ah. Paaku Sénéma Thiaro ngi nii. Ah. Bawol Bawol yi ku xam-xam ne dama bëri Pikine dama jëlee nag Médina Colobane Fass Gueule Tapée. waaye nag yoo xam ne ñëwagun gaa yi dox ñëw ci stade bi. maa koy ëpp mobilisation fuuf waaw Pape Sarr Pape euh, li nga taxawal tey noo ba taxawal ko muy diggante bébé Birahim ak ki nga xam ne mooy Zal Bambey tey li ma ci xam bëri na bëri na promoteur ko bëggoon mhm. yàlla dox nga def say code ba taxawal combat bi Pape Sarr yow mii yaa tax nag mhm. combat bi bu taxawee yow mii yaa ko dam mhm. la siy gërëm bu baax bi nga ñëwee da maa génneel numéro bébé Birahim ma ne leen Ousmane ne ma Pape Sarr ah, Zal Bambey te ñëpp xam nañu sama diggante ak moom mu ngi nii di ma dégg Ousmane bu paree. billaahi wallaahi tallaahi sama ngor may na ma mu nekk parrain bi. mu nekk parrain bi bu paree. man mun naa ko jox parrain bi. Mhm. parce que tamit wax dëgg yàlla dañoo bokk lu bari ñu bokk pikin mhm. kii tamit yu yu bàyyi yëpp. ku ci nekk kër goo dugg moo la ko tabaxal. kooku tey dañoo foofandoo mu taxawuma mhm. tey. lii bu amee sax moom la surtout mbay joob bëggul nag ma koy tudd mbay joob tey waaw Mbaye Diop muy sa xarit nee na ma demal nga solali Sa Thiès blouson hmm. Pape Sarr nga waxaal ak ñoom te tey maa ngi xaar làmb yii rek moo tax mais tey maa ngi ñaan mbay juuf mbay Diouf bu bawal dama lay ñaan nga yombalal ma affaire bi ma dugal ci bàcc seeraas parce que man déggoon naa ak bàcc seeraas. ci journée bi wala ci jour ci journée bi. non Mbaye na jël avance bi parce que tey retour de bàcc seeraas laa bëgg indiwaat fii ci arène nationale bi. Mbaye Diouf yow suma frère nga. parce que sama diggante ak Mbaye mbapato Ama Balde laa organiser fii. ma bàyyi ñëpp woo Mbaye Diouf ne ko kaay arbitré Ama Balde. mooy Ama Balde ñaari yaar. soo xoolee benn benn mbëru Pikine arbitré wu ko Mbaye Diouf laa woowi moo ko arbitré fii ñu taxaw nii tey muy teere cosaan Mbaye Diouf moo arbitré komba boobu kon tey bu ma bëggee sa combat mm-hmm. dag ma ko war a yombalal tey damaa bëgg tey lébu gi sap-sap bawal bawal yi sap-sap waaw que le meilleur gagne waaw maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sponsor yi sponsor loolu non mention spéciale xam nga sponsor boo xam ne takkagoo baasam defagoo dara loxom ñëw kon du du ma leen gërëm takkaguma dara amaguma dat amaguma dara tegaguma seen ñoom ñëpp seen loxo ñëw na ci man. Mhm. surtout Xbet. woon Xbet Jamil Nouroula. Mhm. Ousmane Cissé aussi. Zador. Mhm. Kanji moom. waaw TDR TDR kenn du moom. établissement kenn du moom ak ak Katarina. Katarina tamit maa koy woo Tampico moom ñëw na pare nañu maa ngi nuyu presse bi yëpp di nuyu sama sama ñaari rakk yi nga xamante ne tey dam leen di ñaanal parce que yombalal nañ ma affaire bi mhm. sa man dugg naa ci mbaru Pikine man dugg naa ci mbëru pikin tey moom laa bëggoon mbaru pikin mhm. pour taxawal ko combat comprendre nga mhm. wax ak rakku bàyyi ma njoon bi mais su ma juumul journaliste moo ko yàq lay sama adversaire li ma koy wax bëri non non ragaluma ko kii lan lay ragal si moom kii ñi ma bëri ñoo ko gën a ës fuuf. kii waaye bu njëkkoon si man dootu fa dugaat. Hmm? billaay walaay kii bu njëkkoon si man dootu fa dugaat. ah loolu la wax kay loolu garaaw bu nekkoon si moom laa njëkk instant maa ngi hmm. xanaa dootuma fa duggati xanaa. ci moom laa yem loolu na ko balaa mu jël arbitre sifflé bu sifflé dinañ xam ndax ci moom laa yem wala. Hmm. man la yem dootu fa jëlaat keneen pare na suñu école kii pare na suñu école dootu fa jëlaat keneen. dootu fa koy yënd bu ci jógee dootu fa. tudd sax keneen sax. koy pare. kii li ma koy pare lépp laa koy pare kii dama koy duma ba ñëpp xam ne duma naa ko mosoo koo jàpp daan ko ndax ma ko ah. jàppee daan nii rek day xaw a yomb dama koy duma ba pare barki alxuraan dama koy duma ba pare soo koo jàpp daan maa ko doole foofu. dama ko bu waxoon moo tax loolu lay bëgg a rectifier garaawul mën naa daan rek ko waxoon duma bi léegi na duma. garaawul mun naa ko bàyyi mu duma ma mais naa ko daan garaawul. <laughs> jërë ngeen jëf. waaw. waaw maa ngi woo ñëpp nag di woo sama mbokku séeréer yi ñëpp waaw képp ku ne ma xooyaa fogole séeréer fop mee xooyaa fop képp ku ne nanga mexey mee rek na fi o mexey mee fop mee xooyaa fop waa Fissel Mbadane Niodior ah, Fimela di woo waa Marlodj di woo waa kii Joal Fadiouth ah, maa ñëpp maa ngi woo ñëpp bàyyuma kenn dëkku séeréer yi yëpp maa ngi woo ñëpp bàyyuma kenn daal waaw di woo waa Sandaga bu baax a baax képp ku naan yokkal ma jaay la maa lay woo si combat bi nga jàpp ci bu baax di woo waa Medina di woo sama mbokku séeréer ñëpp bàyyi ma kenn di woo ñu fi mel ni Bas Bay waaw di ji woo kii euh, Ablaye di woo kii Moussa maa ngi woo Youssouf Bamba di woo kii nu mu tuddati Baara Diop maa ngi koy woo bu baax Baye Sall maa ngi koy woo bu baax a baax di woo kii Makan Makan maa ngi koy woo bu baax a baax kooku kum jaayul yére baaxut maa ngi koy woo ci combat bi bu baax a baax waaw di woo ñëpp daal bàyyi ñu kenn di woo waa Medina bu baax a baax a baax. d'accord di sant bu nga xam ne daa bàyyi yitteem yëpp. ñoo indi ma fii premièrement moom laa njëkk a sant sama waa koñ Achille alaaji naar su ma limee damay jum borom set képp kuy takk nuxur la torop mais sama kii yëpp dam leen di féliciter parce que parce que parce que Boy Baldé bi jàmbaar la dugaar mu ngi nii billaahi wallaahi wa taala 17 adversaire laa ko wutal te ñi ma la ñi mu ko wutal yëpp dugaar a leen raw dafa mujjee ne ma Pape Sarr utal ma koo mu utal baax na ki baat ak tontu la. ñom ñaar kon dama leen di félicité ba sama ñaar rak yépp lañu. Mm-hmm. man nak bala may wax ci lool damay nuyu presse bu bu baax. Mm-hmm. di leen ñaanal di rafetlu seen liggéey. di gëreum tay ñi fi nekk ñëpp suma xarit yëpp. ak boy yi nga xamantene tay ñom ñëpp signé naa ak ñom mm-hmm. ñëpp xam nañ ni dama doon sonn ci ay mbeur tay suma joggé ba am occasion di teug kon bépp mbeur bu ma fay 100000 ngay premier combat ba ci grand combat bi. képp ku ci dugg ci di ñëw. ànd ak say supporters dinaa la may bologu ticket bu deux cent mille jaaykatul làmb yi koo xamante ne tey yaa ngi jaay làmb nekk jaaykatu kafe nekk jaaykatu crème amul kenn ku ma ciy daggaloo ticket képp ku ñëw si biir stade bi pour daan sa doole gratuite la journaliste yi tamit dama dégg promoteurs yi am yu ñu leen di jox pour ñu dugg accréditation télé loolu duma ko sax defar journaliste yi leen yëkkati leen seen caméra def ko direct man maa leen may loolu yéen presse bi yaa ngi may dégg loolu moom def naa ko te lépp xbet moo ko def uh-huh. wan xbet Jamil la xam nga Kanji xam nga aussi Ousmane siise uh-huh. boroom kër yu rafet yi nekk Atlanta uh-huh. xam nga mais kenn du mbay jóob kenn du mbay jóob soo leen déggee ma doon wax ni damaa bëgg solal Sa Thiès utal ko adversaire daa am fu ma ko teg surtout sadoor ñoom it jàppale nañ ma Baye Ndiaye ak Aziz Ndiaye Elimane Masata ñoom it dañ maa taxaw Birane nduur moom sama caution moo ko fay doomu Youssou Ndour mention spéciale caution bi ma fay CNG Birane nduur moo ma ko jox te billaay wallaay sama sama sama bid see làmb sax laalaguma ko yëpp samay nit ñoo ma ko jox Thierno ndoom Ba yëkkati na un million jox ma Thierno Ndom jaarale ko ci Tafa Ba yëkkati na un million may ma ko pour jàppale ma kon nag maa ngi woo képp koo xamante ne rek musuma la gàntul sa bis biir damaa bëgg waxuma ngeen jàppale ma mbër yi ma tëgg ngeen jëndal leen ay ticket waxuma ñu may ma dërëm mais mbër yi nga dégg ni jox naa leen nga dimbali ma nga jëndal leen ay bologu ticket pour ma taaral stade bi yaa ngi may dégg te terewuma nag benn journaliste may ñaan tamit journaliste yi nañu yem seen liggéey sama soo gisee sama grand combat yéex su ma demee ba jubook mbër bi ba pare ñoom journaliste yi ñooy dem woo mbër yële soo gisee journaliste yi ñii nii ñoo maanu samay mbir moo tax ma indi leen ñii journaliste yi tey def direct yi dama koy wax ñëpp di ma dégg ñoom ñoo maandu sama kombaa moo tax ma indi leen dégg nga keneen ku si gisul sa bopp nag sama làmb terewuma la mais samay mbër doo leen jël doo doo doo jël sama dara mais terewuma leen ñu dugg ci làmb ji filmer terewuma ko kenn mais bépp journaliste boo xamante ne yaa ngi doon dox di yàq sama combat samay mbër doo leen jël doo ñëw sama face à mais duma la tere sama làmb waxuma benn mm, euh, journaliste bu mu takk badd wala ay badd ak man noonu man awma problème boobu mais man ak ñoom ñoo for mm-hmm. mais lépp lu ñu def yëg naa ko yëg naa ko nag ñoom ñëpp nag soo gisee nag képp ku si ku bokkul ci affaire bi xam nga ni li nga li nga ma def yëg naa ko moo tax woowuma leen loolu kese la te awma ak ñoom benn problème musuñu ma soxla ci interview ma gàntul leen yenn saa yi dañ may jël interview jël ci man ay vie ma yëkkati sama pa sama xaalis ne leen am leen paas leen kon am na yoo xam ne jaru ko